damay wax ni euh, ci barki démb laa gis ay soxna yu jàmbaare yu amal benn ndaje ak euh, journalistes yi pour exiger à ce que le député Ousmane Sonko leader politique de l'opposition que ñu restituer ko passeport am ma jàpp ni nag li ñu wax dëgg la ndax euh, daaw ba tey ñu ngi tey ay passeport am mënul tukki muy leaderu opposition muy maire aujourd'hui de Ziguinchor war au non du mandat bi ko administré mi jox war a dem ak dikk di lijjanti li jëm ci loolu muy leaderu opposition aussi ndax ñu ngi jëm ci élection législative mu war a mën a dem euh, ca bitim réew aussi mën a am ay ndaje yu mu fa mën a amal ak ay militant am bu dee nag mbir mi am na depuis boobu ba tey amut procès dara amut euh, ndax gis nañu Ousmane Sonko moom mi depuis deux mille euh, vingt et un bi mbir yi amee waxoon na ni moom Euh, buggoon na pour que procès am pour que mbir yi leer mais au delà de ça sénégalais yi aussi ñi ci ëpp ñi génnoon jug pour bañ faagaagal bi nga xamante ni Macky Sall mu ngi bëggoon faagaagalee ko suñu démocratie woon nañu buggoon nañu que procès mu am que ñu respecter les droits de Ousmane Sonko en tant que opposant politique mais en même temps aussi Adji Sarr bi nga xamante ni citoyenne sénégalais la que bépp sénégalais bi nga xamante ni état de droit ak justice moo la tax a jug bëgg nga mbir yi mu leer mais boobu ba tey ñu ngi tardeel mbir yi mu mel ni benn épée de Damoclès bi ñu teg ci boppu opposant politique yor ay kayitam mënut dem mënut dikk mu nekk fii amoon na ay jamono sax ñu invité woon ko lome mu waroon dem foofu ay waxtaan yi mu waroon am ak yeneen africain ñu ngi ko téye Sénégal fii mënul liggéey ñu jàpp ni loolu du dëgg du yoon loolu du dëgg du yoon ku bëgg jàmm ci réew mi Macky Sall bu dee jàmm la bëgg ci réew mi loolu warut am mënuñu jël épée de Damoclès boobu teg ko ci ndodd opposant politique yor ay kayitam munul voyager. ma ni aussi gis nañu ci ñaari fan yi ci une benn euh, journal ni député yi nga xamante ni tudd woon nañ leen ci mbirum passeport diplomatique yi en un temps record bouclé nañu seen dossier ba le 17 mars ñu ngi jëm ci projet gis nañu ku mel ni kilifa ak Simon depuis boobu ba tey ñu ngi tardel dossier bi bouclé wuñ ko sax mu doon aussi benn épée de Damoclès bi ñu teg ci seen bopp nu ñu dem mënuñu dikk donc mu mel ni pratique la bi nga xamante ni Macky Sall da koy teg am na yeneen jéego yu mu tegoon deux mille vingt et un doxut tey mu am ñeneen ni muy doxalee pour di di téye opposant politique pour di faagaagal nit ñi du ñu mën a dem du ñu mën a dikk ñu jàpp ni du dëgg du yoon dëkk bu am yoon bu situation posé woo justice dafa war a def liggéeyam tëdd njaaxaanaayam et que li war a am mu am euh, ci ci ci ci dëgg ci yoon justice mu def liggéeyam waaye te dossier bi di ko yàggal pour que nit ki du mën a dem du mën a dikk loolu du dëgg du yoon te dañ koy ñaawlu di artu président Macky